doog a yeewu gis yéen ñëpp ngeen taf Bassirou Diomaye fay di ko xas ñii di ko ñaawal sénégalais kenn mënu koo comprendre mais yéen lu ngeen bëgg ne ngeen changement ngeen bëgg Macky sàll mi nga xam ne dafa liggéey Sénégal jantal ci président ngeen jële ko fi ne da ngeen a bëgg changement gouvernement bu bees falal seen bopp Bassirou Diomaye fay du ngeen ko may taa ku ne di ko xas naan xoolal ni muy solo xoolal costume bi fi mu koy dugal nay sol ay dëgg la costume bi moom dañ ko koo forcé mais moom costume jàpp ko moom nay sol ay baylaat ñawlu ay mbasiris yu bëri buy toog ak Macron wala Poutine wala princesse Angleterre bi di ko sol ndax yii costume moom amul France yii costume amul Russie yii costume amul Angleterre ba pare discours bi ngeen di wax discours bi ñi ko koy bindal ñoo ko tooñ discours bi muy discours du discours président discours militant la ñi ko koy bindal ñoo ko tooñ nan bàyyi di ko bindal te moom tamit mu takk fitam wii doon góor di xoole di gëdd di wax comme président yi nii def waaye foo ko fekk day lamsal di xewi naan nii mel ne ku ragal xaw ko koy dóor wala bu koy agressé moom comme ku tiit jëlal président yow président nga léegi Diomaye yow yaa jiite Sénégal yaa jiite sama yaay yaa jiite sama papa yaa jiite sama famille ci leer lan la fal pour nga jiite ñooñu yaayu Adama Boss Dieye Negri kay boo ko jiitee amul ragal mais di xewi xewi nan bàyyi di ko bindal discours yu bon parce que Diomaye bu ne on va abréger les de des Sénégalais ah surtout les hommes loolu baaxul loolu mooy néew bu dee nga fekk ko mu dee di woo ko mais nga jekkali ko mu faatu néew buy waaj a dee nga jekkali ko loolu du ay français dara loolu gars yi ko bindal ñoo ko toñ nan bàyyi di ko bindal discours yéen a gën a xam ne Diomaye du Ousmane Sonko Ousmane Sonko gën a jantal moo gën a boo Ousmane Sonko gën a intellectuel Ousmane Sonko ëpp xam-xam moo gën a xam discours yi muy def jomay discours bu mu def di discours président déedéet nanu waxtaane dëgg discours militant la bu simple mais nag nan ko jox temps day doog a falu mais ku ne di ko xas yéen lu ngeen bëgg li ngeen bëgg laa xamul changement ngeen bëggoon fal ngeen jubay mais lu luy seen problème lu tax ngeen koy xas jox leen ko temps jox leen ko temps rek dina ñëw jëlal sa temps nga dem ci télé yi nga taal Ablaye Wade jàkkaarloog moom di ko seetaan jëlal sa temps ngay seetaan discours Abdou Diouf jëlal sa temps ngay seetaan discours Berlusconi wutal xam-xam fu ne Macron ak Giorgia Meloni ak Pérez ak liiral discours yépp ba xam li nga war a wax doog a génn parce que bu fekkee nii ngay génne léegi nga def tëj tëj de Sénégalais yépp a nga koy kas nag gis ngeen affaire yi ñëpp ñëpp may leen ko temps yéen ko fal yéen gën a leer na Diomaye du Ousmane Sonko du Macky sàll du président Amadou Ba